Samba Wane ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. di fàttali suñu auditeurs yi ne yow yaay secretaire général section euh, locale bu syndicat national des corps gras euh, ca COPEOL ñu gis ne syndicat national bi sax justement bu corps yi tàmbali nañ benn tournée national lan lañu xayma ci euh, lii di jënd ak njaay mi nga xam ne tàmbali na depuis le fii ci Sénégal jëm ci gerte gi. li ñu xayma mooy bi campagne bi ubbee ba léegi ma altine bi li weesu. ba léegi huiliers yi ñoom gisuñu gerte. Mhm. gisuñu gerte te naam dëgg-dëgg prix bi ñi nga xam ne moom la ñu fay baax na mhm. parce que état bi dafa fixé ci juróom fukk ñun huiliers ñu ne dinañ ci teg juróom benn dërëm muy juróom fukk ak juróom benn boo ñu indilee gerte dinañ la fay kilo bu nekk juróom fukk ak juróom benn. Mhm. waaye gis nañ ne boo ba léegi eh, benn camion ñëwul benn opérateur indi lu ñu gerte donc mu doon loo xam ne jaaxal nañu te doy na aussi doy na que. Euh, dañu jàppoon ne gerte bëri na euh, mais boobu ba léegi daal gisuñu gerte te nag euh, suñu waree dëkk bi tuuti gis nañ ne fi nga xam ne moom la étranger yi nekk ñu ci lu raw te muy chinois yi. Mm-hmm. ñoom ñoom ñu ngi jot gerte bu baax. ñoom seen i seen i ñoom ka seen en tout cas seen i euh, fi nga xam ne moom la ñu nekk mhm. soo fa demee di fa fekk activité bi di yëngu bu baax. Euh, tey mhm. jii euh, mu mel ni donc ni mu démarré baaxul ci yéen ngeen foog ne tamit lan moo ko waral ndax concurrence bi am si marché bi moo waral ñu léser ñi nga xam ne ñooy locaux yi nationaux yi. wala mhm. njëg biñ ko fixé moo baax. waaw non concurrence moo ñu sonal. mais loolu tax na ba ñun tamit ñu ne euh, bu ñu bëggee am gerte rek ñun tam ci suñu wàll boobu war nañ def benn effort. ba nege ni démb direction bi euh, jóge na ci juróom fukk ak juróom-benn dem ci juróom-benn juróom euh, fukk ak ak ñeent. Mhm. waaw loolu yëpp pour fexe. ba am gerte la waaye ba béykat bi aussi gis ci boppam mhm. parce que jàpp nañ ne euh, fu chinois bi mun a jënd juróom benn fukk ñun war nañ fa mun a jënd loolu moo tax euh, ñu ne ñu nit nañu dabe loolu mais euh, diggante démb ak tey nag commencé nañu gis ay benn ñaari camion ndax ni ngeen ko yéegal ba trois cent vingt ndax jàpp ngeen ne yen tey ji koppewal googu dina ko mën a supporter euh, coût boobu ndax gis nañ daaw li fi xew ñàkk koppar moo tax ba mu bàyyi ñenn ci ay liggéey katam waaw ñun ñun xam nga ay privé lañ donc jàpp naa ne direction bi su demee ba na ba ba mën a fay euh, juróom-benn fukk ak ñeent jàpp naa ne def na ay calcul am ak yëpp woon ne su ko jëndee loolu dina ko mën a jaayee loo xam ne dina ci couvrir ay charge am fay ci ay salaire am ba mën ci am peut-être euh, bénéfice lu mu ndaw ndaw ndaw mais sunu objectif mooy vraiment ren comme daaw amuñu woon gerte dañu mujj licencier une bonne partie du personnel ren nag ñu ne euh, société bi waruñ ko bàyyi noonu war nañ mën a fexe au moins ren ñu jënd gerte doxal ko. di xaar nag at yii ñëw mais ren moom pour ñun année charnière la donc war nañoo fexe lu ne ba jënd gerte doxal usine bi donc loolu moo tax seetuñ ci certainement bénéfice bu kaway kaway kawe loolu mais ñun dañu ne nañu fexe daal am gerte tourner suñuy usine et justement liggéeykat yooyu fu ñu mujj tey. waaw kat yooyu mm-hmm. kat yooyu euh, biñ leen biñ leen wàññee dañ leen dafa am loo xam ne yoon moo leen ko may mm-hmm. fii ñaari at euh, am waruñu suñu commencé suñu activité waruñu jël keneen ku dul ñoom mm-hmm. donc ba tax na bi ñu tàmbali suñu activité comme nag activité bi dañu doog a démarrer euh, donc dañu dañu xaaj jël benn partie ci ñeent équipe yi donc ñu reprendre maintenant su fekkee ne nag am nañ gerte comme ni ñu ko yaakaaree ba usine bi war a dox normalement ñoom ñëppay reprendre incha allah tey jii monsieur Wane lan mooy conséquence su euh, gerte gi ñu koy jënd fii di ko jéggaane bu doon producteurs yi dañ koo jaay rek ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, chinois yi ndax euh, ñoo gën a teg xaalis ci table bi. waaw conséquence yi mooy bu yàggee filière bi dafay dee. lu tax ma ne filière bi dafay dee parce que huiliers yi quand même bu am import bu am solo la ci ci ci chaîne bi. Mhm. donc su lii nag su continuer ba huiliers yi mënatuñu am gerte dañu tëj. bu ñu tëjee nag ah chinois yi rek ñoo fi des chinois yi nag euh, ku nekk xam na ne bu ñu fépp ñu nekk ñoom rek ñu nekk fa. Mm-hmm. donc dañuy ñëw nag euh, nu mu tuddati doggali la nga ña nga xam ne ñoo fa des. donc te loolu loolu je pense que état bi war na fexe ba loolu bañ am. wax nga ko sànq waaw muy problème semence tey jii am na ci jaaykat yi wala c'est si producteurs yi ñu ne euh, semence basé wul ci li nga xam ne mooy li ñu récolté ren di ko jaay euh, parce que am na beneen procédure bi nga xam ne foofu lañ koy jëlee dañoo bëggoon comprendre nan lay demee semence yooyu. waaw nu mu muy demee mooy tey ñun ñëpp xam nañ ne béykat bi ñi ci ëpp bokk amuñu doole. Mhm. ba tax na suñu béyee seen gerte lu ñu mën lu ñu bëgg rek mooy jaay ko ci prix bu baax pour mun a faj seen soxla. Mhm. su ko defee ne état bi nag xam loolu sax moo tax mu mu mu mu mu at bu nekk muy muy muy joxe semence maintenant semence nag ñi koy am dafa am ay opérateurs yoo xam ne moom la état bi agréé ñooñu ñooy lijjanti mbiru semence. Mhm. xam nga mhm. mais su fekkee ñooñu ñooñu euh, dañuy jënd dañuy jënd gerte ci campagne bi la ñuy jënd euh, denc ko traité ko denc ko ba nawet war a ñëw ñu distribuer ko. waaye su fekkee concurrence bi dem na ba gerte gu baax bi lu ci ëpp yëpp jaay nañ ko chinois yi ñooñu bu campa bu bu bu campagne waree ubbi ñoom du ñu gis bu gerte bu ñu jënd pour mun ko def semence mhm. donc loolu la ñu wax monsieur Wane ñan ñooy différentes parties prenantes yi parce que am na ñuy ñaxtu ne am na ñu nekk ci secteur bi te bokkuñu ci ñu bëggoon a xam jënd ak mhm. njaay bi ñan ak ñan la ñan la concerné. waaw euh, secteur bi dafa di ne euh, béykat bi d'abord moo ci nekk. huilier bi nekk ci. transporteurs yi sax ci lañu bokk. Mhm. Euh, léegi nag chinois yi ñoo ñëw rax si. chinois yi nag ñoom tamit ay jëndkat lañ. kenn mënul waaw kenn mënul wax ne du ñu jënd. Mhm. waaye dafa am nag ñoo xam ne dañu dox ci diggante bi bokkuñu fen chinois yi la ñu liggéeyal directement. Mhm. chinois yi ñoo ñëw jël leen ñu servir leen d'intermédiaire donc bokkuñu ci filière bi bokkuñu CEDIA bokkuñu fenn. Mhm. donc ñooñu loolu la ñuy wax ne nag teguwul ci yoon aussi. tey mhm. jii lan ngeen jàpp ne buñ ko defee dinañu organiser secteur bi ba yéen ñi ngeen xam ne yéen ay industrie yi nekk fii ci mim réew gën a bénéficier wu ci collecte bi. waaw wax naa ko sànq diggante daaw ak ren état bi quand même euh, loo ko bañ bañ bañ mun nga nangu ne def na ay effort. Mhm. parce que daaw. liñ doon ñaxtu bokk na ci ñu delloo si taxe bi. Mhm. bokk na si ñu traité ñëpp ñuy jënd au même de d'égalité. Mhm. donc ren gis nañ ne delloo si nañ taxe gis nañ ne aussi service du commerce fépp point de collecte nekk déclaré. Mhm. dinañ fa teew pour xool ndax opération yi mu ngi déroulé ñu ngi ko waxee ndax prix yi nga xam ne moom la état bi fixé ni ñaa ngi koy jëndee. donc loolu ay effort la yoo xam ne état bi def na ko waaye dañ ne ñun loolu doyul. non seulement dafa war a encadrer euh, mesures yooyu euh, waaye daf ci war a dolli limiter li nga xam ne moom mooy chinois yi nga xam ne moom mooy ñëw di comme ni mu koy defee ci yeneen i secteur mm-hmm. donc ñun loolu lañ ne su ko état bi defee daal en tout cas dina jàppale huiliers yi te dina tax secteur bi dundaat na mu waroon dundee. tey mhm. suñu souci euh, monsieur Wane mooy béykat bi li muy dépensé ngir mu euh, defar lii di euh, mbéy mi moom moo ko xam ndax yoon la état war a li nga xam ne mooy prix. pour ñu jaay gerte gi. waaw état bi su fixé sax pour jàppale béykat bi. parce que bu bu ko bàyyi woon ak chinois yi bàyyi ko huiliers yi rek ñoom dañu basé wu ci prix bi nga xam ne moom moo nekk sur le marché mondial. donc te su boobaa prix boobu moo gën a néew prix bi nga xam ne état bi moom la fixé. Mhm. donc état bi pour jàppale béykat boobu euh, moo tax mu fixé prix prix plafond soo xoolee sax prix plafond la c'est-à-dire maintenant mënoo jënd lu yées juróom fukk. Mhm. waaye boo bu boo bu béykat bu mën a jaayee gerteem ba téeméer sax ah, bu see client bu jënd téeméer mun na ko jaay donc loolu avantage la boo xam ne état bi def na ko pour njëriñu baykat bi. njëriñu béykat yi mais sànq dafa mel ni da nga ne ni ñuy euh, fixe prix yi arrangé wu leen yéen ñii di huiliers yi. waaw arrangé wuñu parce que prix bi fi mu toll nii ak concurrence bi euh, donc dafay tax ñu def ay effort yu yu yu yu ëpp yi nga xam ne moom la suñu prévision moom lañ defoon ci suñuy prévision. Mhm. waaw donc loolu la mais euh, comme fi am. il faut ñu ñu def ay effort pour mun a suivre wax naa ko sànq ne li ñu bëgg mooy. Euh, bañ a seetaan ba suñu entreprise bi tëj parce que daaw arrêté woon nañ activités yi ba licencié ay nit ren nag dañu leen nañ def ay effort lu mu mun fi yem ba en tout cas effort bu ñu mën a supporté rek nañ ko def ba mun a doxal suñu usine. d'accord voilà. Samba Wane merci beaucoup. Mm-hmm. maa ngi leen di gërëm leen sant. may fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi doon dalal secretaire général section locale syndicat national des corps gras ca COPEOL.